asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tedd yu baax yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñiy setaan te xamuñu fan laa nekk fii la ñuy wax daarul miraaya fii mooy këru Mawlaaya Seydi Ahmed Tijaani qaddasallahu sirrahu fii moo nekkoon dëkkuwaayam ay appartement moo nekk nii ci kaw fii moo nekkoon salle bu muy recevoir ay ganam ay muqaddamam ganam yu tedd yi macha allah. Euh, kër gi nag soo ko xoolee danga gis nekk na situation bu doy waar lii dafay junju ñàkk itte ñàq himma euh, bi nga xam ne ñun taalibe yi euh, wax dëgg yàlla def nañ ko kër gi nga xam ne fii la moo Mawlana Sidi Ahmed Tijani dëkk amu Rachid bi ñuy tudd nga xam ne ci la jot kat mi ak xat mi jamono fii la ko fekk macha allah ci fii nag nga xam ne dañu nekk ñu doy dil ko sonnal ko bàyyi ko mu nekk situation de délabrement damay wax ne ñun Tijani yi Euh, war nañu gën a góorgóorlu euh, war nañu gën a jaayante euh, ngir mën a yeesal fii nga xam ne ay fuyu daat yu kawe ay may yu rëy rëy ay bëbb yu doywaar ay fuyu daat yu jéggi dayo ay maqaamaat yu kawe suñu sëriñ fii na ko fekk macha allah fii la ñuy dégg xibaar yu bëri yoo xam ne kuy jàng yenn xibaar yi nga xam ne Cheikh Tidiane dund na ko téere bi ñuy wax tey Tayyib Safiani nga xam ne mooy ifadatul ahmadiya bëri na ay xibaar yu mu nettali yoo xam ne fii la xewee macha allah donc ñu war a bàyyi xel bu baax a baax ci bërëb bu tedd bi xam ni lépp lu baax ci àdduna taxawaay la laaj organisation la laaj waaye jaayante la laaj ndax soo nee diw mooy sama sëriñ war nga taxaw ci yenn patrimoine yi nga xam ne nit yi nañ fa mën a def tabarruk nañ ci mën a ñëw foofu di di di xencu baraka bi fa wàcc ndax yàlla du soppi mukk fi mu def euh, ay teraangaam donc euh, war dañ ci gën a am góorgóorlu euh, ku ñëw ci dëkk bu tedd bii di taalibe Cheikh di nga am la metti trop ci nu bàyyee kër gi d'abord waaye nu ñuy dundee ci biir zawiya ba zawiya Sidi Ahmad Tijani alantur bi yëpp ay ay ay ay yu doy waar a fa xew ay nit yu ñàkk xorma nit yu taxaw di tux seen hashish di tux ay cigarette te lii yëpp taxawaay rek la laaj ak jaayante kessa la rek ak ma sha allah donc talib cheikh yi nag am nañu sas bu rëy te damay wax ni ni woyé kilifa tarixa bi fa ci Sénégal bu ñu dogu won am taxaway ci li wallahi dina soppeeku ndaxte kat bu ñu fatali tarixa bi kilifa gi kenn la rek mi Mawlana sidi ahmed Tijani qaddasallahu sirrahu di len ziaré ñep di len nuyu di balu ak di leen baal eh, wax deug yalla fatte ñu kenn si ñaan ñaanal nañu rew mi ñaanal senegal yëpp ñaanal mbokk taalibe yi ñaanal mbokk julit yëpp eh, yalla na yalla nangu mbolé mi ñaan yi yalla ñu yalla gëreum yalla yalla defal ñu tawfiq eh, barakallahu fikum jamian amna du ñak mu naam suñu amé jot fi le guddi ñu ma def ben live bu ndaw ci waxtaan ci teranga yi xamé wër bi ñu wax muharram ak jeexitam ndax ñu ngi waaj safar 18 safar bés bi nga xam ne dafa am jeexital bu kawe ci mbooleemi awliyaawu laay tabaraka wa taala yi ñoom ibnu arabi al xaatimi ñoom xalaaj ñoom abu yazid al bastami ñoom ñoom ñoom imam yu gën a kawe ba si Mawlana Sidi Ahmed Tijani ñoom Cheikh Abdul Qadir Jilani dama ne góor yàlla yu mag yëpp am nañu histoire ak 18 safar waaye histoire bu ci gën a garaaw bu ci gën a kawe bu ci gën a tedd mooy histoire laylatul katma nga xam ne euh, maqaama katmiyatu bu Sidi Ahmad Tidiane jot ci guddi googu euh, ànd koog Sidi Aliou Harazim xalifa bu tedd bi euh, fële ci Arafa donc dañ ci ñëwaat incha allah ci ay waxtaan ñu ko gën a leeral yàlla na yàlla gërëm yàlla na yàlla barkeel waaw macha allah kër gi nag dafa mel ni. ministère des affaires religieuses bu dëkk bi moo commencé jël en charge dafa bëgg def rénovation ak restauration lii gàcce la si taalibi cheikh yi wax dëgg yàlla yàlla na yàlla doole sutura yàlla na yàlla def dëgg-dëgg taalibe yàlla na yàlla gërëm bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ahiyaakumullah